Relationships as we know them can be quite difficult at times, be it a marriage, an engagement, or even a new acquaintance. Couples sometimes find themselves in situations where there is a breakup or a separation, which tends to lead to an exposure of either party's personal information, mainly nude photos to be specific. We were out in the streets of Caraba Avenue earlier today to ask members of the general public their individual views on issues of this caliber. We also asked them if the leaking of one's private information is worthy of imprisonment. If we look in our environment or in our society, or rather, uh, we have norms and values that, like in a relationship, we come together we share ideas, knowledge, feelings, and everything at large. Not sure. And then in the next minute, life, everything doesn't end in a good way, but sometimes things comes in other circumstances. So whatsoever happens, let's see how best we can solve those problems. But rather, if we re-inquire for photos, for our intimate photos or our self photos, and in the next minute a breakup happens to come, those photos should have not been shared if we sharing those photos to the world and to other people who don't know us, obviously, we are going away or going beside aside of our norms and values because we are Africans, I can say. We have norms, we come from traditionals and we have our cultures which values human privacies. Are we there? So if a person share a privacy with you, know that there is a relationship that goes in between you. If the relationship gets broke up or whatsoever, the privacy should be there hidden, but it should not be exposed. You expose somebody's privacy, obviously, you're doing something very bad to that person. And there, you're also reducing the person social interaction with people because he will feel, he or she feels shy and then in the next minute it can also affect the psychological motive of that person it depends on how strength the person is mm. soo nekkee ak jigéen mu nekk sa jabar wala góor bi tamit nekk sa jëkkër loolee mënti def yéen ñaar si seen diggante waruloo koo dugal ay social media di ko wane xam nga ak loo leen munti jotee loo leen ti xam nga àdduna bi jarul loolu noonu nga war a jël lu nekk xam nga jël cëri jàmbur dugal ko si media bi parce que xam nga su nekkee sa sista la wala sa leneen du la ne du la ne neexut kenn so nit ñi nañ baye suñ xel bu baaxa baaxa baax ci lu ñoo def noonu anastan ñu xamne ñun ñepp benn lañ so amé problème ak sa jëkkar nit ñi mun nañ ko régler su né affaire yi fara tamit bobu tamit nit ñi mun nañ si taxaw wa lu nekk muñ la rek mo gën ngaay jël cëri nit diko social media lool lu ko gëna ñaaw si aduna amut waaw yalla mo ñu bind sa bëggut kuy uñi sutura jàmbur anastan ah bobu loolu jaaduwut rafetut waaye man jigéen yi tamit man dama leen dee euh, blame si another side parce que jigéen yi dañ góom xaalis too much dañ góom xaalis too much boo xamante ne comme mostly nag dem kati baax weyi ñooy di most of the problem si problème bi because da ngaa gis koo xamante ne mu fii nekkee wut jëriñu kenn si askan bi mu dem Europe rek nga bugg a am relationship ak moom te relationship boobu lu moo soxla pour yow su la euh, su waree détaillé yow wala mu war a communiquer taa yow daf laa ne nataalal ma sa nikit seen ma ko man su ma mi nga gis ni dal na ma nit seen na ma crédit maa ngi amee suma message yi yëpp fii seen na ma crédit dañ nekk di communiquer mu seen ma crédit léegi bu ma seenee crédit ma ne ko ne man aw ma mu ne ma ne waa xaaral ma seen la crédit mu crédit seen ma crédit 150 bu ma seenee wan 150 ba pare suba teel la sax ma ne ko ne mu ne ma ne léegi seen ma sa naked picture ma ne ko ne man du ma la seen suma naked picture ma ne ko ne because man 150 jaralul ma leneen ni sax saka xaali ma ne ko ne man su ma jaayee mun naa am lu ëpp 150 pa di loolu warut maa jaral sa maay def yeneen ni benn jànq kool ma ne di ma traité ne moom police officer la waaw texte bi yëpp man maa ngi ko amee fii jànga bi kool ma mu ne ma ne moom officer la ma ne ko ne soo nekkee wada hel officer man faalewu ma la ma ne ko ne man traffic light laa dee jaayee su la nee ñëwal nga ñëw fekk ma fa bañu ma si dara nag mu ne ma ne ah ma ne ko ne waaw waaye after bi ma doon pusan pula moom ba suma ñoom raka ñëw ma expliqué na leen ñoo ñu ne ma woo loola naa delloo crédit bi ma ne ko ne crédit bi soo gisee ma delloo ko wax laa bugut ma ne ko ne dama dee am lu ëpp 150 su ma naree jël kii crédit am bi tamit mu ñëw yóbbu ma police wala leneen am dafa ñoo indi problème jànq bi kool ma di ma traité te am na nit yoo xamante ne ñu ngi fii ñooñu ñoo nekka di liggéeyaa ñoom liggéeyaa ñoom de am na ñu fi nekk ñu nekk di liggéeyaa ñoom jànq yi ñoo war a bàyyi xel ñu eewu si yeneen yi. ah actually as a woman as a decent woman. You are not supposed to go to social media and open your body. If man love you, let him love you what you are. It's not because you open your body for man to see you that you are beauty or you are a good woman or what. But you are just disgracing yourself. It's very, very, very, very, very wrong for a woman to naked her body, for her to show her body in the internet because you never knew what will happen. The same somebody who will think that he wants to let her, please, just open your body and you know that kind of person Tomorrow it will just looks you like maybe you are a prostitute or any other thing. All I know is very, very, very, very wrong for a woman, a woman, a decent woman, to put herself as a social media for open her body. Very wrong. Thank you. Okay. What's up? aduna doom aadama bu nekk da nga war di xool si sa kilifa so sa kilifa yi sa waajur sa mag yu jigéen sa rak yu jigéen so am not noo day gisee seen mbir o du len dal yena natu tu leen dal do si kontan a ding ko fil because ap ni ku neka su ko hole da nga wara hol sa bo do dal su lo war di janga because ab saraka bu jigen tay so ko gison tay ñu pose am si biti du la ne saraka bu góor so ko gison tay suma way ñu def ko lo am ni mo suma way naka si du non du la ne so kon lu si muntu neka dal ni ku neka na nga sa hel di xam ne aduna bi so am nga luñ fi neka bëri na wut so am nga So obviously, the government also should make a best use of it, and then like the uh, this PIRO, the Public Relation Utility Authority, should see how best they can uh, link with these GSM operators and see what do people see in the internet based in our country, and see that like whatsoever is shared, let it not be in public. If people happen to share things that are public, or sorry, that's a private in the public, obviously there are rules that should be imposed onto those people and we see that such things are regulated and is minimized in our country so as we can live as one people one, one nation and then we live in a harmony society Iwangom reporting for the Fair 2 Network's news review